Dakar, notre plateforme d'information. koy door ak mariage yu Betty mi nekkoon ci série pot et Marichou te ginnaaw bi itam ñu seen ko ci série infidèle mu def fa liggéey bu am solo Betty mi nga xamante ne bii marié na ak Baye Ndiaye doon na ñaareelu baay Ndiaye démb ak tey fa ci réseaux sociaux yi rek photo Betty moom nga fay gis ñu di ko partagé ak di wax sañse bi nga xamante ne bi sañse na ko moom Betty ba noppi itam li ci gën a jaaxal internet yi mooy Betty amul lenn loo xamante ne bii rek def na ko ci yaram bu bokkut ak li nga xamante ne bii rek noonu la mel naturellement maanaam daal béti mariage la def boo xamante ne bi itam ci anam bu naturel la ko defee ndax it nag gisuñu béti def pose ongle gisuñu mu def pose xef lenn loo xamante ne bi daal day yokk jigéen gisuñu béti def ko journal bi di bind ne naturellement la ñu gisee ñaareelu Baye Ndiaye waaye itam mu wane rek ab taaram wane jongomam wane ni itam xale la moom béti moomu ca laay des ba tey post bi nga xamante ne bi def na ko ci Snapchatam lam ca wax rek mooy alhamdulilah bi nga xamante ne bi sama rêve day ki ko waroon a réaliser na ko ndax nag yaa ma digoon na di nga samay rêve réaliser nga ko ba nga demee ca maag mën nga njëkk a taxaw ñaanal ma ngir rêve bi nga xamante ne bi amoon naa ci àdduna muy sëy ak yow nga daal di ko réaliser kon tey bi nga xamante ne bi na ko moom béti moom day ñaareelu Baye Ndiaye ki nekk aaw Baye Ndiaye tey moom la ñu xëy journal bi ne di wax ne ki nga xamante ne bii rek mooy aaw Baye Ndiaye de moo ne am na ay vidéo yoo xamante ne bi Baye Ndiaye doon a takkal wujj vidéo na ko wax ci ab aawam tey jile ñëpp moom la ñu xëy rek di ko statut ak di waar ki nga xamante ne bii moo di Baye Ndiaye keneen ka ci àddu moo di pot mi ne bii moo formé bétti pot ay page moo di ne man day formé naa Aïcha Rasoul Aziz daa di jël ma daa di formé ti ki nga xamante ne bii mooy bétti Baye Ndiaye jël am na koo xamante ne bi des na ci famille bi mën naa ñëw ma wutal ko keneen ndax it na ginnaaw lu ma formé rek askanu njaayeen jël ka loolu moo di pot mi nga xamante ne bi mooy mu bind kàddu mi ngi ko doon bind nag ci ton mbalaka kafakaree waaye nag bu weesoo loolu ma ngay souhaité heureux ménage ki nga xamante ne bi mooy bétti digganteem ak Baye ci Balla Gaye 2 laay wax mi tontu Modou Lo Balla Gaye 2 nga bañ nga nangu maay empereur des arènes ki wax loolu moo di Balla Gaye 2 mu mel la ndax moom mi nga xamante ne bii mooy roi des arènes Balla Gaye 2 di wax ne nga ci toftal rek mooy nee man maay Nelson Mandela ndax nag Nelson Mandela ni mu libéré aw askan man Balla Gaye 2 noonu laa libéré làmb loolu yi moom nga bëgg ma man Balla Gaye wala nga bañ ma war nga xam ne man maay indépendance ci làmb Balla Gaye de ma nga doon wax loolu rek ginnaaw ba nga xamante ne bi ma nga doon jàkkaarloo ak Tafatine journaliste yi di ko laaj ci la yëkkati kàddu yu ni mel wax ko Balla Gaye de jàkkaarloo mag Tafatine nag ñu gis ci émotion bu doy waar ndax nag yëkkati na fa ay kàddu yoo xamante ne bii daanaka ña fa nekkoon sax dañ doon tuur ay xéewal ndax Balla Gaye nee na Tafatine day mbër la moo xamante ne bii daan naa ko waaye jàpp naa ko ba faaw ndax gis naa ne boroom xol bu rafet la ndax daan naa ko jël bu rëy te itam teewul ba ma jógee di ko encouragé dafa taxaw dëglu ma ànd ak dal ba noppi itam nangul ma sama victoire kon nag ñi nga xamante ne bi ñi ngi wër di wax wax ju ñaaw nanu bàyyi wax ju ñaaw ji te xam ne man Balla Gaye 2 day jàpp naa tafaatin te itam jàpp goo xamante ne bi dootuma ko bàyyi làmb la sport la ñooy mayante xaalis waaye nag bu weesoo sport nañu seq jàmm yéeneente jàmm tan ba noppi itam bàyyi wax ju ñaaw li wette mooy wax ju ñaaw daal moom dégguma ko benn yoon ci tafaatin li lay waral ma jàpp ko këykati kàddu yi ni mel moo di Balla Gaye numéro 2 wax ci rakkaay daxam yi ñu gis mu publier ay photo photo yoo xamante ni bii nag photo yu jongoma la waaye nag mu mel ni daf cee gën a sexy wane ay cuissam moom Racky Aïdara photo yooyu internet yi ku ci nekk ñu ngi koy partagé ba noppi di wax dafa gën a sexy ana Racky kan lay defanteel boobaak tey nag gëj nañu koo gis mu bind loo xamante bi mbirum defante la waaye daal ma ngay photow rek ak di poste ci internet moom ay dara di ñaareelu Doro Gaye Bécaye Mbaye wax na ci diggante Balla Gaye 2 ak ki nga xamante ni bii rek moo di Lac de Guiers Gueye day ci làmb ji amul kenn koo xamante koo daan nag waaye taxaw ne maa mën Balla Gaye loolu moom dina jafee la te la mbër la moo ne bi képp ku lekk avance am doon nelaw te itam mën na li muy def ba noppi itam na daal dëgg-dëgg ndaanaan la Bécaye Mbaye daal di wax rek ne Tapha Tine nag démérité wul Balla Gaye ci boppam mooy ndaanaan leneen lu mu waxaat ci mbirum Lac de Guiers Bécaye Mbaye ku ne xam ne ni moom moo def ay pexe bal génne Lac de Guiers ci kaso bi mu ne nag loolu day maa ngi ciy sant yàlla bu baax waaye itam di ci remercier kilifa yi nga xamante ne bii ñoo ma ci jàppale te itam keneen ku ma ciy remercier bokk na ci sama patron di El Hadj Ndiaye bu 2 ndax nag moom moo doon contacter yenn kilifa yi ñu fexe ba fay xaalis ba ba mu mat sëkk ko doon ko yóbbu fële ca caisse de dépôt de consignation li wétéwoor rek mooy li nga xamante ne bi daal moom laay xelal lak de bu mu duggati ci benn looxoor fi mu nekk nii nag dañ ko wutal combat mu daal di bëre ndax gis naa ne soxla na lool dafa war a am combat daar daar ka yëkkati kàddu yu ni mel moo di Bécaye Mbaye Aziz Ndiaye la ñu gis ci ab oto muy déglu benn vidéo boo xamante ne bi Siteu moo ko ciy classe Siteu day mu nga yëkkati ay kàddu yu ñagas rek jëmale ko ci Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye jël vidéo ba daal di ko playaat ci ab otoom ba noppi di vidéo boppam di déglu kàddu nga xamante ne bi moom la Siteu di di wax rek ne Aziz dama bëgg nga xam ne xew mi doo ci dara te it nag maa ngi xaar rek sa mbër mi nga xamante ne bi moom nga ngemb man moom laa gën a soxla bu ñu dajee nga xam ne lépp dëgg la waaye nangu leen li yàlla dogal combat bi tëggoo ko te itam tëgg mérito na loolu di kàddu yu Siteu waaye nag Aziz defu ci benn commentaire daanaka dafa déglu vidéo ba mu jeex ci ab otoom Aziz Ndiaye yëkkati ay kàddu rek dernier face to face Balla Gaye Tapha Tine wax ne kii di Balla Gaye 2 pendant six mois dina fayeeku rek weer wu dee un million cinq cent waaye nag ki nga xamante ne bi moo di Tapha Tine moom itam weer wu dee dinañ ko jox cinq cent mille ba noppi itam bu weesoo loolu kii di Grand Serigne de Dakar may na leen rek ku ci nekk ñaari terrain tey jëlee dinañ leen jébbal yooyu la terrain duudu mi ci série bété bété gis nañu ko mu ànd ak soxnaam ñu am complicité itam ñu baax la ñu gis leen rek ñoom ñaar ñu ànd ak soxna di kafakaree moom duudu mi nga xamante ne bi ràññee nañ ko ci série bété bété muy remercier rek sénégalais yeeg cofeel gi nga xamante ne bi am nañ ko ci moom moom duudu Wally Ballago Seck changé woon na ab look jëlee rastam takk la def daanaka nag moom Wally Seck changé look bi ba muy changé look bi ñu bëri doon nañ wax naan Wally Bambey moo tax Wally Seck changé look bi Wally Seck de look boobu mu changé Wally Bambey def na look bu ni mel di ko wan ne ko yow laay topp ba mu sës ca Gàmbi ga mu nekk moom Wally de ma nga jóor ab xaalis gis ci kawab lalam di wax na lii li lépp gambien yi ñoo ma ko terale te itam li ma fas yéene mooy jëlaat ko terale ko Wally Ballago Seck Aba No Stress ma ngay wax ak Pawlish Mbaye di ko conseillé naan ko MMA du bul topp boucher këccëb mu lay conseillé ndax nag xamul dara ci MMA demal nga jàkkaarloog ay lutteur professionnel ñu conseillé la ci MMA bugguma nga dugg ci lu ñàkk fayda bul def ni boucher kay provoqué boucher moo di Aba No Stress Amadou Ba ca Touba Mbàkke ga mu demoon du fa wax waxi politique bu wax jotee rek dina wax waaye fi mu nekk nii comme dañoo am ay njiit yu bees nañ bàyyi ñu doxal Ousmane Sonko président Bassirou Diomaye Faye ña wax ne dañoo am problème mooy waa RFM ci revue de presse Mamadou Mouhamed Ndiaye ci lañ dégg ñu ne waxtu bi nga xamante ne ma ngay laamisoog Emmanuel Macron ma ngay wax ne dogal yi nga xamante ne bi waa France jël nañ ko ci tirailleurs sénégalais yi daanaka àndu ci kon nag pëccoxoo am na dëgg-dëgg ci gouvernement bi ka wax loolu moo di Mamadou Mouhamed Ndiaye xamante ne rek dafa tawat nanet lay wuyoo koppar bi ko war a sauver mu toll ci cent de di gis image sur Feeling Dakar TV ba tax na askanu Sénégal li ñuy sàkku li ñuy ñaan leen képp la ñu jàppale Nanette mi mu am tan ci nu mu gën a gaawee ba mën a sax dellu ci li nga xamante mooy nguuru Sénégal jàppale ki nga xamante mooy Nanette ci somme bi nga xamante rek war na koo mën a récolter mu toll ci 188 de francs CFA pour mën a nga xamante rek mu mën a am tan gu baax baax baax ba tax na numéro téléphone yaa noonu affiché ngeen jëf.